baax a baax a baax a baax ah. di am mbégteeg bànneex ak plaisir bu baax a ah, teewaat ak yéen ah, ci seen euh, vision média comme ni nga ko baaxoo di ànd à bi euh, yéen ñii safoo baaxoo di ànd ak ñun ñu leen di nuyu di leen bu baax ah fépp fu nekk ci réew mi bitim réew ñu koy bàyyi xel mu ci géej gi ci jéeri ba ci jaww ji aussi donc di nuyu kilifa diine kilifa aada yi. ah vraiment ñu ngi leen suñu doxee xol di leen bu baax a baax a baax di yëg ci seen yënguwaay yi tolloon ah, ñi am tawat di ko doxantoo aussi ah ak ñi tëdd ci hôpital ci kër yi amee ah, tawat ñu ngi leen di ah, ñaan suñu borom bu baax a baax a baax di bàyyi xel également ñi nga xamante ni nekk ci prison yi caabi féete leen ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal suñu borom génnee leen ci bërëb yooyu ñu nekk ñu mën a dellu ci ci njaboot yi ñi faatu aussi di way daw lii tam ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax comme ni ñu ko baaxoo di à chaque fois ak suñu sœur suñu sister système, ah, nga xamante ne damay neex mais teel moom saa su nekk mm-hmm. ah, soxna ma leen jaw ngeen ci moom ak di may di donc ci émission autour de la question donc autour de la question tey soxna ma rek andi bu doy ah. soxna ma ma a euh, maman. sama xarit sama soppi sama góor kon nag nee naa asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ne ñoom ñoo safoo euh, Elvision Média Elvision Média moom nag moo xew si jamono lëmbe àdduna Sénégal neex na Sénégal neex na àdduna neex na ñëpp macha allah laf teet li nga xamante ni moo di Elvision Média kon nag euh, sama lataango bi mu def rek moom ak noonu euh, kilifa diine ak kilifa aada yi ne si biir réew ak ci bitim réew. di leen ñaanal mais également aussi di sàkku si ñoom ñaan naka noonu tamit laay daagoo ndànk ba ci hôpitaux yi ñaanal ñi nga xamante ni ñooy maladie suñu borom bi fëgg seen bopp ba ñu gaaw delluwaat ci njaboot nuyu fa ma fa ma bàyyeekoo waa Kër Mbaye Fall Thiaroye waaye di nuyu tamit bu baax a baax waa Wakaam moment jërëjëf soxna Marème euh, macha allah kàddu yi rafet na comme ni nga waxee donc soxna Marème rek ma nuyu sama waa diwaan waa Kër Moussa a baax di may junee ak soppe yo ak am di jàmm de la solution dafa am thème d'actualité ah thème bu lëmbee jamono ah thème bu doy waar donc ma bàyyi la nga waxtaan la comme ni ñu koy gisee saa su nekk ci seen émission bu mag bii di autour de la exhibition fii Elvision Media que thème bi ñu leen indi muy thème boo xamante ne thème bu fréquent la ñu nemmeeku ko ci jamono bi bu baax a baax muy li nga xamante ni moo di euh, grossesse en milieu scolaire ñu koy nemmeeku euh, surtout ci fi nga xamante ni moo di ci banlieue bi bu ñu nee banlieue bi ah damay dugg ci li nga xamante ne nag moo di. Euh,

donc ñu fas yéene cee waxtaane ci cause maanaam bokk di càmbar mbir mi lan moo koy waral ba ci conséquence aussi lan lañ mën a jural ci ay yàqu-yàqu soxna Ndeye ci euh, askan wi ba ci ndaw ñi koy dund wante ci solution également bi bu fekkente ne am na donc bu ñu waxtaanee ko ah baaxee leen ci aussi donc nekk na mbir moo xamante ni doy na waar soxna ma dama bàyyi leen ubbi ci cause yi dëgg la am moment comme ni nga ko waxee doy na waar trop mais lii lañ ko defee rek saa su nekk ci seen émission bi di autour de la solution fii si El Vision Média El Vision Média nag lu am solo rek lay waxtaanee te ay sujet d'actualité lay faral di waxtaanee kon nag comme ni nga ko waxee dafa bëri ci banlieue bi mhm.

mais tamit euh, bu ñu milieu scolaire ndaw si ñëw di jàng si maanaam xale yi ñëw di jàng si ak donc âge bu mënti am bu ñuy am ko koy jàngal aussi muy professeur bi wala enseignant bi mm-hmm. donc tey bu ñu milieu scolaire rek donc euh, grossesse bi li ci ëpp donc c'est entre les enseignants ou les professeurs ak seeni élèves donc grossesse précoce bi foofu lay donc euh, ci loolu la en fait mm-hmm. ci biir milieu scolaire yi ah. mm-hmm. donc soxna Mariam dama lay laaj ba tey ah ci cause yi ah. ndax jigéen ñaa ngi jàng si jamono ji est-ce que les filles ñu ngi ñëw pour apprendre à l'école ndax amuñu yeneen nekk seen xel lu dul jàng ah soxna na parce que on a constaté que ni léegi daal jigéen ñi muy noonu daal en fait jàng si bi parce que dañ doon ne nekk bu njëkk am na noonu daan habillé woo uh-huh. yenn habillement yi yenn par exemple tenue tenue yoo xam ne dafa am valeur trop. Mm-hmm. ci milieu scolaire dañ daan éviter loo jigéen ñi mm-hmm. solo moom du ñuy jàng seen moom. Mm-hmm. ñu gis ni léegi dañuy jàng seen de n'importe quelle manière poudre dëgg la moom da ngaa question bu am am solo ndax jigéen ñi léegi ñoom jàng moo leen yëkkati ah,

kër la ko mhm. te ay waajuram la fa la fa bàyyi kon baax am na ci part de am na ci part de responsabilité. Mhm. ndax sa doom war nga ko yar bu baax a baax ba nga def ba nga xamante ne su génnee ci ci mbedd bi dara dara dara du ko fëkkam. soo xoolee euh, mhm. xale jigéen ñi ñoom tamit. quasiment je peux dire que ni jàng indi indeetu leen wala jàng su fekkente ne indi na leen à 100 ah du ma à 100 uh-huh. mais je dirais à 50 à 40 parce que soo xoolee sax uh-huh. ci xayma jigéen ñi léegi niveau dafa dafa nekk di wàcc bu baax a baax ndax lan yaa ngi dem jàngi yaa ngi xool professeur bi dafa jantal uh-huh. par exemple professeur bi ni muy waxee daf ma neex wala wala super euh, superviseur bi wala keneen ak donc euh, xale yi daal pour résumer à 100 pour mon école pour jàngi dañuy dem école pour yeneen ak jërëjëf soxna Marième comme ni nga ko waxee amati na solo lay wax ah. donc su leen ñu nga léegi nii jeunes yu bari ñu ci jigéen ñi ñëwatuñ pour jàng si en fait jàng si rek taxu leen jóg yitteelu leen mais ñu leen am yeneen idée ci seen xel ñëw di jéem a xool professeur ci biir loolu tudd nga professeur yi ndax tamit aussi professeurs yi ñi ngi jàngale na mu waree ndax professeur yaa ngi jàngale aussi su ma laajee ndax élèves yaa ngi jàng si comme nañu war a jàng ndax professeurs yi ngi jàngale nañu war a jàngale élèves yi jërëjëf jërëjëf maman sa question bi kontaan naa ci bu baax baax ba grossesse en milieu euh, scolaire gis nga li nga question nga posé dafa dafa am solo que professeurs yi ay ay lañ de responsabilité amatuñu amuñu responsabilité professeurs la majeure euh, partie amuñu njaboot. Hmm amuñu doom wala amuñu jabar mais su fekkente ne nit ki tu es majeur et vacciné nga nekk un bon responsable nga bàyyi njaboot sa kër bàyyi ay doom bàyyi soxna je pense que xale bi ñëw nga koy jàngal dina am beneen bët boo koy xoolee bay egg ak moom di ko sàkku ba xale bi di ci jëlee grossesse donc mm. formation euh, professeur yi war nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que professeur di jàngale nekk enseignant dafa nekk loo xamante ne dafa noble donc c'est pas permis à n'importe qui nga mën a ñëw rek un beau jour rek taxaw naan da ngay jàngale très bien soxna Marème donc pour rebondir un peu donc ci li nga wax ci cause yi ah, ci côté professeur yi souligné nga lu am solo mooy que ni ah, ñu ne professeur yi ñoo maase ah. Mhm, ñoo maase ah. Mhm. donc on est de la même génération. ay jeunes comme voilà uh-huh. donc je pense que le fait que ñu am benn. duggante bi ak suñu professeurs yi parce que bu ñu fàtte ne auparavant mm-hmm. suñu maîtres yi temps yi ñu nekk ndaw di jàng ak mm-hmm. suñu professeurs yi bu ñu leen daan seen dañu daan daw ci mm-hmm. wedd bi ah bu daan football je me souviens bien seen suñu benn professeur wala suñu benn maître dañu daw mais léegi dañuy dañuy ñeme professeurs yi de telle sorte que mm-hmm. ñun jeunes yi dañuy duggante ak ñoom di wootante ñoom téléphone di kafal ak ñoom quoi qu'on puisse dire ñoom bokk même génération donc lu ñu magee bariwul mm-hmm. ñoo dañu donc suñuy grand frère lañ suñuy nijaay donc je pense que aussi duggante boobu tam am na ci euh, lu ñu ci causé aussi le fait que professeurs yi duggante seen élèves yi maasante ak ñoom di kafante ak ñoom mm-hmm. donc élèves yi aussi ñu jigéen ñi tam ñu bàyyiwaat seen xel bu baax que ni ñu jug pour jàng si da ngay gis jigéen ñi di jàng si

élèves ak professeur yi wala ak enseignants ku koy jàngal. Mhm. mais soxna ma dem bu ñu fàttalee aussi itam. Mhm. Euh, am na ci biir milieu scolaire ci diggante élèves bi fekk enseignant wala professeur bi yëgu ci dara aussi donc war na mën war nañ mën a wax ci loolu aussi ci grossesse ci milieu scolaire. ci mhm. entre jeune entre élèves. ci góor ñi ak jigéen ci école yi soxna ma dem. voilà donc mi ngi noonu mu nekk phénomène de taille boo xam te ne ñu koy vivre jamono jii ci société sénégalaise bi donc jeunes yi entre ñoom lan mooy waral.

dañuy commencé di jàng lu ci mel ni déjà économie familiale économie familiale écofam léegi éducation voilà te reproduction humaine. exactement teel a instauré parce que je me souviens bien ñun suñu temps di nga dem ba ay quatrième troisième bokk jàng. mais léegi dañ ko teel a système bi à partir de sixième secondaire nga commencé di jàng lool. donc déjà yow ndaw mi ñu ngi lay jàngal naka ngay reproduire aussi ah. mooy mhm. ko góor ki mooy ko jigéen di la nataalal say appareils yi nekk si yow les appareils génitaux de l'homme et de la femme. Mhm. di la <laughs> éco économie familiale ak Banglano donc maa ko ciy nuyu au passage moom moo ma yoroon temps CM1. <laughs> moo waroon yoroon ci économie familiale. donc ñu gis ni soxna Marème donc jàngal boobu ñu leen di jàngal ci mbir moomu dafay dem ba dafay susciter seen attention à ce koy jéem a di ko appliquer en fait di jéem ko di ko découvrir ci biir loolu dañuy a découvrir sexualité bi aussi tam am na ci am na a découvrir seen sexualité aussi tam. bokk na ci cause yi quoi. effectivement mhm. moment euh, li nga wax euh, dañuy dëgg bu wér tey waaye nag yaa ngi fàttaliku de. loolu sax fàttaliku de jamonoy seem ah. mbaa do économie familiale. nekkoon nag ku boo xam ne bu bu bu intéressant la. muy que ku ku surtout ku jigéen ku jigéen ki mënoon na si mënoon na si jàng lu bëri. mais bu ñu demee ba nga xamante ne loolu bu ñu koy jàng. Mhm. très Euh, élèves yi dañuy sob mhm. dañu dëkk élève de nature dafa sob dafa dëj kumpa dafay bëgg découvrir li muy jàng nii dafay bëgg xam lan la donc programme boobu noonu ci côté économie familiale bi mhm. bu ñu mënoon xool ban ban ci ban période la ko élèves yi di jàngee je pense que euh, dina tane ba nga xam ne mu fekk élève yi ñu xaw a mature tuuti mhm. xaw a xam tuuti lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy responsabilité mais beneen bi euh, tamit muy ci wàllum tamit réseau réseau réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi léegi dañuy nekk youtube di xool di n'importe quoi xam nga dugg ci internet bi léegi nag ku mel ni par exemple comme Marème seetaan na ko gis benn moroomu góoram ainsi de suite nangam na ak yeneen ak yeneen donc li ñuy seetaan bon jaaduwul du du lu ñu lu ñu war a xool daal par exemple ah d'accord voilà comme ni nga ko waxee donc d'une part aussi ndaw ah, ñi ah, ñu teel a découvrir seen sexualité yépp

Facebook donc internet bi donc muy noonu am na ndaw ñoo xamante ni c' est à travers lu ñu gis ci internet bi di ko fooyee di ko seetaan moom la ñu mujj en fait di ko parce que gis nañu vidéo yi ñuy di ko jàllale. voilà ñu ngi noonu parce que gis nañu téléphone bu njëkk. su daan ñëw di jàng si dafa daan bàyyi seen sa biir classe. di professeur bi ñu ngi expliqué yow yaa ci sa téléphone di envoyé texto ak ñu ni mel donc ci WhatsApp bi ci Facebook donc loolu tam bokk na ci ah am loo xam ne gis nga ko ci internet bi ñëw mhm. ndaw ñëw sa milieu milieu scolaire parce que mënoo ko def ci bi ci amaana donc li nga mën a mbubboo yow ndaw mi mhm. dem jàngi ji boo demee au lieu que nga dem jàngi yaa ngi nekk di def nag su dul noonu yow ndaw si jigéen si di farantu de gauche à droite. ba jëlee ci grossesse moo xam sa professeur wala ba jëlee ci grossesse. mu nekk résultat moo xam si entre professeur ak élève ci entre élève yow ak sa benn moroom boo xamante ne mhm. bu baax a baax a baax. Mhm. nga ndaw ñaa ngi dund grossesse précoce. donc jamono ji ah rawatina foofu ci te sous région bi aussi. mu si mhm. mel ni ci daal Casamance Kolda. donc ndaw ñaa ngi dund bu baax a baax a baax aussi seen biir école yi moo xam seen digganteeg professeurs yi moo xam seen digganteeg camarade de de yi moroom élèves yi mm-hmm. Mm-hmm. donc mbir mu doy waar ah. vraiment mbir mu mbir mu doy waar doy ah. na waar vraiment phénomène de taille la ñu ngi koy dund jamono ji donc ci càmbar ci cause yi comme ni ñu ko waxee bari na trop dëgg la bari na hmm. trop te xaaruñu woon loolu ci élève ak ak ak moroomam élève góor bi ak élève bu jigéen bi ñu doon dem di di jàngi ji dañuy dem pour sàkku ji xam-xam pour ñu hmm. mën a indi ay résultats ëllëg hmm. mais bu ñu demee ba gis ni léegi ci école yi da ngay jékki-jékki gis rek jékki-jékki rek gis benn mareem ak ak ak ak biiram à la limite dafay arrêté parce que mënatul mënatul mënatul continuer donc euh, ñu voilà mi ngi noonu donc Euh, ci biir loolu la ñuy dem ci conséquences yi maanaam li mu mën a andi société bi donc dañuy wax grossesse précoce bi am milieu scolaire ndaw si nga xamante ni am na ëmb ci biir milieu scolaire moom ko jigéen ki d'abord mhm. lan moo ko ci mën a fekk conséquences yi lan la lan moo ko ci mën a fekk ci wàllu avenir ci jàng bi ñuy jàng ak ci leneen leneen merci Momar maa ngi kontaanaat bu baax a baax di tontu sa question bi ba léegi yéen seen émission bi di autour de la solution fii si El Média xam nga xale bu jigéen mënoo nekk un état de process ba pare nga bëgg nga bëgg continuer parce que man je me dis bu fekkente ne jàng moom moo la moo la yóbbu woon donc du bon

àndul ak li nga xamante ni moom moo di jàng mhm. parce que xel mënul jàppandoo ñaar mhm. mënul jàppandoo ñaar te mënoo nekk ci métier ba pare nga bëgg wax nga lu am solo donc li leen ci mën a fekk ci ëmb hôpital boobu maanaam leen ci école yi nga mhm. donc ñu mujj yàq seen réputation donc mujj nekk ci mbedd bi dootu ñu mën a am yenn diplôme yi yëpp problème la si donc ci posé ci jigéen ñi donc Euh, bu dee ci entre jigéen ndaw bi nga xam ne élève ak professeur am professeur moom tam conséquence la ma ko si mën a gis nga kooku man du ko dippee sax professeur. amul titre professeur quoi. pour man selon man personnellement amul titre professeur ndax professeur dafa nekk loo xamante ni lu riche la dafa noble da nga war a joxe le bon exemple mm. xale dañu war a roy ci yow ba mm. tax na professeur yi dañu war a am comportement bu baax mm. professeur yi dañu war. di xam nan la ñuy communiquer ak xale yi ni ñuy solo ak ni ñuy doxalee mm-hmm. pas da ngay ñëw war a jàngale si ay xale di sol ay peew wala du n'importe quoi. Mm-hmm. Euh, ñoom quoi. gis nga man amoon boo xam ne xam naa ne suñu mbokk internet yi ñuy seetaan fii si mm-hmm. El Vision Médias dinañu reetaan mais xam nga lan la ñu doon def loolu doo ko laaj. Rihanna la ñu doon jàngaloo. <laughs> xam nga prof bi lan lay machine am lay indi. Uh-huh. ne jox leen ma CD vierge ku nekk indi CD vierge. ليغنان كي بموسى بليلة يوخ waa dëkk bi dinañ woy ci classe naan jàngi ji leen ko te gis nga morceau bi amour kese lay wax. lay woy mm. léegi loolu ban importance la am ñu Rihanna ban ban ban importance la ah? importance su fekkoon ne jàngal nañu ci mel ni ma faa war di wele. Mm. loolu dina am suñu avantage la. Euh, wala ñu ngi nga xamante ne moo di maam euh, Soxna Diarra mm-hmm. doon nañu amal solo mais li ñuy jàngal amul solo ba tax na mm-hmm. kooku titre professeur sax waru ko am à la limite dañ ko war a dàq. parce que professeur su demee bay sax. xalaat ko ki nga xamante ne moo élève am la kooku c' est autre chose kooku bon du du du du du vraiment. ku responsable daal voilà voilà comme ni nga mm-hmm. waxee. et aussi da fay salir euh, réputation professeur bi aussi donc dina mm-hmm. salir réputation en tant que professeur. Mm-hmm. école bi aussi bi nek dina yak réputation école bi. vraiment donc soxna Marième donc indi nga lu am solo ci conséquences hein ah. moo ci professeur ni moo ci ndaw jigéen ñi violé mais ci góor nga xamanteni camarade de classe bu jigéen ki la aussi donc violé na ko jigéen ki. ñu gis que ni bu dul professeur nekk camarade de classe am moom bu góor gi dara du ko ci fekk en fait. Mm. donc jigéen ki lañuy ndax moom mooy obligé ñàngam yàpp am na ñeneen mm. yàpp donc ci vois ku góor ki ñàkk bi nga xamante ni euh, daan ci wàllum école bi ci mm. moom. wala ci société bi nga defee ni lu jaadu la mm-hmm. ndax parce que responsabilité yi c'est partagé en parce que jigéen kii fu mu ëmbee ëmbalul boppam mm-hmm. am na góor bu mu àndal moo xam professeur je pense que bu doon ci côté professeur bi mm-hmm. laa moom c'est sûr que dañ koy dàq ci école boobu niñ dàkkee jigéen bi élève bi noonu lañ dàkkee professeur bi parce que salir sa réputation yàqale mu enjeu école bi mais ku góor ki nga xam ne dafa nekk classe ku jigéen ko aussi defe naa je pense bien que ni soxna Maria fuñu dàggee ko jigéen moom tam ku góor ki également moom war nañ nga dem ba yox dëgg euh, di am doomu ak ki nga xamante ne moo di sa mbokkum kooku dañ kaa war a dàkk moom su fekkente ne mhm. am na ci bu dee parents yu am fulla laa wax de mm-hmm, mm-hmm. dina si am parents yoo xam ne mm-hmm. dañ naan la dootoo dem jàngi yow yow certes ku góor nga dañ naan la bàyyi nga jàngi voilà dañ naan la demal nga jàngi métier à la limite dañ naan la nga takk ko dafay loolu noonu conséquence dafay tax xale góor ñi di teel am soxna te woo seen tey seen am soxna jotalul maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy doomu jàmbur mhm. seen parents yi leen di ko takk ak noo mënti def di ko takk di nga liggéey ji ñëw dundal ko ak ki nga xam ne moo di moo di seen moom dëgg la donc ñu ngi noonu ah vraiment mbir mu doy waar donc ñu si doon waxtaanee bu baax depuis ñu euh, ngeen ko baaxoo di ànd ak ñu ci El Vision Médias depuis boobu tey toujours soxna ma rek ñu ngi ci waxtaanee mbir mu am solo pour fàttali nit ñi rek ñu ngi seen émission autour de la question donc émission buy waxtaan donc lépp loo xam te ni soxal nañu jeunesse bi ah jeunesse bi aussi wante émission bi day bàyyi xel mag ñi aussi ah ñu leen bàyyi xel bu baax donc tey ñuy waxtaanee toujours donc pour Euh, fàttali euh, mbokk internet yi mm-hmm. ci li nga xamante ne moom mooy la grossesse précoce en milieu scolaire muy teel yi donc ci école yi nga xamante ne école tubaab yi la donc soxna ma ne ba léegi ñëw ci solution yi parce que dañu wax léegi ëmb teel yi ci cause et conséquence yi ci côté école tubaab bi te gis nañ que ni ci côté école coranique bi dégguñ ko fa donc lan moo waral pour yow euh, ñu koy déggee le plus souvent ci école française bi alors que déggee ñu ko ci école coranique bi te pourtant ñaari école la bu ñu nee daara donc daara école la en fait ci français moo am daara bi nga xamante ni alxuraan lay jàngale wala daara école française bi nga xamante ni mbirum programme français lay jàngale donc foofu lan nga ci mën a apporter comme xalaat ci biir moom la la fekk ñu koy nee ci école française bi ci daara yi

foofu noonu diine lañ lay jàngale ñaan la yàlla nee na yonent bi nee na mag ñu baax ni seen liñ fi bindee ku ci mel ni maam si boo demee ci daara da fay fekk ay bindam ku ci mel ni maam Borom Touba wala mm-hmm. maam Limaamu ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. ñoom soo demee ci école coranique yi da fay fekk li nga xamante ne ñoom mm-hmm. ñoo di ci mel ni nag ah wax naa ko sànq ku ci mel ni maam Fawade Wele ak ak maam Jaara Soxna Jaara kon ñu baax ñooñu surtout ci côté jigéen ñi ñu lay wal jigéen ñi seen comportement ni doon doxalee ni doon waxalee yar bi gerte gi mm-hmm. surtout diine ji mm-hmm. yooyu noonu yëpp dañ la koy jàngal mm-hmm. yu bëri te yooyu boo demee doo ko fekk ci école ci ci doo ko fekk ci école euh, française bi c'est-à-dire école coranique bi dañ lay jàngal déjà nga am yar nga am la ci sa bopp. Mhm. nga am jom nga am fayda. Mhm. surtout nga am kersa. Mhm. waaye kersa dina tax nga jomm nga jomm def. wala nga jomm dem di jàngi ba bés ñëw nga war a indi ñu gis la ak ak ak biir. loolu déjà dañ la koy dañ la koy jàngal. xam nga ne éducation boo ko ratee boo demee bi dañ lay dañ lay jox éducation de base bu gën a bu gën a boo xamante ne soo concentré woo rek dañ ci xam nga foofu noonu dina jàngal ay mbir caaxaan. dina la ko jàngal hmm. ay Victor Hugo yooyu noonu dina ko jàngal ah mag ñu baax ñi lañ lay jàngal lépp loo xamante ni boo fa jaaree hmm. di nga di nga am diine di nga am lislaam de ku la gis daf lay daf lay euh, ci kaw loolu tamit euh, si laay euh, waxee ni rek ni école française yi hmm. dafay jaadu am na am na am na ci yenn am na ci yenn école am na ci école soo fa demee dañuy jàngale arab day am heure yoo xam ne

koy inséré école française yi incha allah macha allah donc kàddu yi na soxna Marème wax nga am solo mooy ñu instauré li nga xamante ne moo ne jàngum diine bi l'éducation ci milieu français bi donc mi ngi noonu ah donc nemmeeku nañ que ni ci côté milieu tubaab bi école française ci la ñu gën a gis école sosperekes boobu alors que bi bokkul mm-hmm. buñ nee daara ja sa xel ma ngay dem ci mag ñu baax ñi ma ngay dem ci yeneen bi si yàlla donc buñ nee daara sa xel ci nga dem alxuraan ci mbind mi nga xam te ne mag ñi bind nañ ko bàyyi ko fii konne bokk solution yi ba tey comme ni nga ko waxee. dëgg la dëgg la moom ak xoolal dogguma la sax waaye sama xel dafa dem ci ñi nga xamante ni école bii di Excellence Maïs nekk fële ca Wakam maa ngi leen def un gros coucou di leen jaajëfal xam nga man fa laa jàngee fa laa gisee sama primaire te pourtant école chrétienne la te dañuy jàngee arab fa laa jàngee maa ngi leen jaajëfal bu baax a baax di leen voilà je pense que li ñuy wax laïcité ñu ngi koy gis si école boobu la donte école chrétienne la c'est une école chrétienne mais néanmoins donc dañ ciy jàngale mbirum diine pour ñi xamante ni ay musulman la nekk ci école yi donc loolu ñu bàyyi xel mhm. donc kon je pense que mbir mi mi ngi noonu ah donc mhm. bokk na ci solution yi mhm. euh, ñu instaurer éducation religieuse ci biir système éducatif mais il paraît que ci état bi euh, ci wàllum jàng ci côté France tubaab bi ci programme boo xoolee élémentaire mhm. instauré nañ leen éducation religieuse mais temps bi doyut peut-être loolu problème la si duñ ci xóotal trop trop mhm. mais collège ak sa moom waxaale ma ko donc c'est au niveau élémentaire donc jot na état bi tam bàyyi ci xel ñu ngi instauré ci élémentaire ñu ngi koy lancé appel ci loolu donc ñu ngi éducation religieuse jamono ji ci tamit ci curriculum de l'éducation de base. Mm-hmm. na fexe saytu loolee bu baax a baax càmbar ko yokkal nañ temps boobule. mais aussi mu nekk continuité ci seen lycée ba ci au niveau universitaire. donc ci biir loolu ñu ko xos ba tey ci biir solution yi ah. Mm-hmm. donc yan solution lañ mën a andi pour saafara bi moom la donc solution bi ba tey ci côté ndaw ñi naka lañ war a def wala xoolal seen toogin. d'accord xool seen comportement je pense bien. Mm-hmm. maman dañ ma posé question bu ma gën a neex. Euh, question bi neex na ma trop. merci beaucoup solution bi ñu war a indiwaat. mu ko parents yi suñu way jëwee. nañu saytu xale. nañuy xool ndaw ñi bu ñuy jàngi li ñuy sol. te bi ci gën a garaaw mooy ñàkk di dem régulièrement à l'école di xool sa doom. di dem di di di wax ak ki nga xamante ne moo di professeur am. wala di wax ak ak directeur am wala di wax ak surveillant bi. naka diw mbaa mi ngi jàng comportement bi mu am na comportement bu baax la mbaa mi ngi nangam ainsi de suite man mii sama maam noonu la doon defar ak man très souvent dina ñëw à l'école te te pourtant ñun suñu école école boobu nag éclatement yi bûche moo ñu moo ñu yóbbu bûche moo ñu indiwaat gis nga su ma day taxaw ci balcon bi ba ma yëg mu dem su ma wàccee mhm. heure wàcc mu ngi taxawaat ci balcon bi di ma séentu mhm. ma wàcc mhm. loolu doyu ko de tout le temps day ñëw école naka dafay tax bi du am fit du am fit wàcc jàdd wala du am fit exactement am di di di jiim que la fille ah, sama yaay bu ko yëgee wala sama papa ko yëgee parce que sama yaay wala sama papa xool xale yi seeni sàkk

ah sama classe bii par exemple man Marème damay bëgg di jàngee fu sori ah comme ça su ma wàccee mu mën a mu mën a lëmbe dëkk bi donc parents yi nañuy dañuy xool xale yi ñu bañ di jàngee fu sori <laughs> bu mënee ñàkk ba mën a ñàkk ah ñu xam ne kat loolu moo fi sës ñu bàyyi ko te ñu topp ko ñu bañ leen ànd ak ñu bañ leen bàyyi rek ak seen ak seen sago je pense que parents yi bu ñu jëlee seen responsabilité jël seen i matukaay mhm. professeur bi xam bu baax moom mhm. li ko indi mhm. dañ ko teg ci kanamu ndaw ñi pour mu jàngaleen pour mu jox leen xam-xam ndax loolu kat ah xam ba pare di xamle. macha allah loolu suñu borom bi rek moom moo la moom moo lay fay. te ndaw yi tamit ñu xam ni farantu yóbbu leen école leneen yóbbu leen école dañuy dem pour jàng ji pour sàkku xam-xam pour ëllëg ñu mën a tekki. ndax jamono ji métti na métti ba nga xamante ne les temps ont changé les temps ont dû muy terme yoo xamante ne très souvent dañuy faral di koy dégg kon boo jàngulee boo demee école jàngoo ba jëlee ci process nga yàqal sa bopp doo ko réccu tey après nga koy réccu soo demee ba dégg dem ay jamono ba dégg ku mel ni Zeyna la puissance

parce que joxe sa doom ci école ba rek ah, donc tegoo ko sa tànk lu mu ne ci jamono ba mu koy inscrit mm-hmm. doo càmbar euh, école am ndax mi ngi jàng lu mu soxla ak yooyu di ñëw di laaj directeur am wala mm-hmm. euh, koy jàngal aussi ndax mi ngi jàng fu niveau toll donc parents yi jot na donc mm-hmm. di topp njaboot bi ba si biir école yi di leen déléb di di xam naka dañ ko toogee lañ koy jàng wax mu lu importance dañu xam ne jàng moo ne négatif donc jàng moo ne tax a jóg sama sœur yi maa koy wax encore une fois donc nga xam jàng mooy tax a jóg jàng mooy njëkkati te ndaw jigéen lu ko yàq dafa dafa dafa dafa dafa gaaw te dafa yomb donc te ni ñu koy waxee ah, jigéen bu mucc dafay raw. Mm-hmm. ñu bàyyi xel loolu mm-hmm. dafay góorgóorlu xoolaat bu baax seen <laughs> jërëjëf donc ñu bàyyi xel loole mhm. di xoolaat toogin bi nekkin bi ndaw ñu góor ñi également tam sama frère yi maa ngi leen di ñu xool jigéen ñi comme ni seen sœur yi en fait. Mhm. bu defe naa je pense que jigéen moom euh, des nañ ko war nañ di ko yërëm. Mhm. di ko xoolee ba ci yaay di ko xoolee ba ci sœur. ah tu vois donc dina am mbir yu bari yoo xamante ni koy seetlu ko sóor di ko ko dawal bu baax. parce que comme si doonoon sa sœur tam dina neex. n'est-ce pas donc mbir maa ngi noonu ñu dellusiwaat suñuy xel ñu ndaw ñi bàyyi xel loolu te xam ne ëllëg euh, du ay mbir rek mais lu mat a sédd la donc te xaar ñu dellusiwaat suñu xel xam a jóg ñu si njaboot bi ci wéyjur yi donc wéyjur yi tam comme ni nga ko waxee am na ci part de responsabilité mais ndaw itam ah professeur bi jàngale aussi mu xam ni mm-hmm. jàngale moo ko tax a jóg ah, ah. donc mu ñëw jàngale te yàlla rek tax parce mm-hmm. que gis nga euh, li ñuy wax l'éducation ou l'enseignement dafa nekk benn métier boo xam ne. métier bu noble la mm-hmm. soxna Mayane nga ci lancé appel donc enseignants yi enseignants yi donc ak professeurs yi ñu nekk ci milieu école bi nañu xam ni euh, lu sali seen réputation dafa mm-hmm. yomb dafa gaaw donc ñu bàyyi xel loole considéré comme les élèves jàngal yi ñu ne war jàngal buñ ci noppee daal di delluwaat si seen yeneen activité si yeneen euh, yeneen occupation mm-hmm. donc soxna Mayane mu mel ni donc loolu moo nekkoon seen uh, émission tey ñu ngi ci doon àndal mu di Momar Diine ak soxna Marème Diaw donc ci El euh, Vision Média ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax yéen suñu mbokk internet yi nga xamante ne soxna ñu koy waxee wax neer na lool mais déggee na dàq donc ñu ngi jaajëfal ñu ngi jamono ci vraiment ñu ngi di baaxee donc seen émission boobu léegi nga xamante ne mooy autour de la solution ngeen ci ànd ñun à chaque fois tey ñu doon waxtaan ak jamono lool lool lool te ñu nemmeeku ko jamono ji ci pangal yi bi trop ba ci sous région bi soxna ma rek muy euh, ëmb teel yi nga xamante ni ndaw ñu ngi ëmb ci biir milieu scolaire maanaam ci biir école yi donc mu nekk mbir mu doy waar je pense que ñu fi jot a soulevé soxna ma rek ñu ngi dañ ko bàyyi xel soxna Marème bala ñuy tàggatoo mbokk yi ah. merci beaucoup maman chers internautes yaakaar naa ni tey li leen indi lool ci seen émission bu mag bii di de la solution am na leen solo bu baax a baax te am naa yaakaar ni. suñu mbokku élèves yi euh, jàng nañ ci lu bëri ba nga xamante ne lii di euh, grossesse en milieu scolaire duma ne dina dañ mais dina wàññeeku bu bu bu baax a baax comme ni ko waxee nag yaakaar naa ne professeur yi ah ñu résumé waa rek professeur yi bu xamee bu baax li leen fa li leen fa li leen tax a jug jàngale moo leen tax a jug xale yi xam ne ñoom dañu jug pour dem jàngi mais non pas pour dem Euh, euh, am fa ay doom wala affaire yooyu noonu mm-hmm. je pense que dina dina am solo mais également tamit suñu waajur yi ñu gën a jël seen responsabilité ñu bañ a bàyyi xale yi rek ak seen sago est-ce que xam nga ni léeg-léeg parents école dina tijji ba tey du du dëgg tànkam euh, école. mais lu grave hein? xale bi mooy inscrire boppam mooy fayal boppam mais bu fekkente ne ku mel comme man dama dëng damay lekk xaalis ah. Ah, dem defi par exemple man kii na wala ma dem nekk ak sama copain fële ne la maa ngi jàngi kon yooyu noonu yëpp parents yi ñu ngi lay lancer appel bu baax a baax ñu gën a saytu xale yi bañ leen bàyyi rek ak seen sago mais également tamit di lancer appel état bi pour que alxuraan bi ñu gën ko instauré ci biir mm, euh, enseignement français bi comme mm. ça mu gën a yaatu ñu gën ko élargir ba xale yi ñu gën a gëm seen bopp gën a xam ñooy ñoom ñooy kan parce que Sénégal lañ nekk du rek dañuy jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñooy occidentaux yi mais def ci baax ñi ñuy jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñooy mag ñu baax ñi fii mm. nekk nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp saagal naa ñëpp nuyu naa sama depuis wakkaam di la wax ne la maam méréew ma la benn yoon ci yar bi ñu ma yar ba tax na fu ma taxaw wax rek ñu ne ma kan mooy sa maam nuyu naa bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu di waa studio promotion fële ca euh, raay bi FM nuyu naa dina la puissance ki nga xamante ne moom moo di chéri lu fraîche maa ngi lay souhaiter heureux ménage di la wax ne la xoolal yàlla bu barkeel nuyu naa ñoom ñaa ah, gis nga chéri lu fraîche nag moom moo ma jox kol bu jekk bi ni mais également yow tamit nag ñu nuyu bu baax a baax ah, di la di la waaw di kontaan bu baax bokk ak yow plateau bi waaye nag sama waa ji kenn du Elvision Média ñu ngi toj àdduna voilà comme ni nga ko waxee El Média donc kenn bi ñoom da ngay toj àdduna macha allah donc foofu ca ca internet bi donc foofu lay doxee soxna Marème ah daal di tàggatoo suñu mbokku internet yi ah, comme ni nga ko defee mm-hmm. ah di nuyu di ziar di bëgg gars yëpp vraiment ñu ngi suivre ci El Média bi nga xamante ni ah comme ni nga ko waxee ah teg na. tëj na tëj na àdduna vraiment donc donc di jaajëfal la ñu doon déglu yëpp

autour de la solution autant pour moi ci li nga xamante ni moo di grossesse précoce en milieu scolaire ma ci doon feggoo ci ànd sama sœur sama soppe soxna Mariam Diaw nga xam te ni période yooyu daf may neex <laughs> donc di leen wax euh, jaa ngeen jëf yéen a baax yéen a ko rek ñu jox dig daje après incha allah jërëjëf